Ndeysaan Ndiol Géant ngi noonu ci compétition bi yaakaar naa gëj na Dakar waaye tey ñëw na <laughs> Ndeysaan ba mujjee ñëw fale ci adresse Senghor moo ko jël moom Ndiol Géant Ndeysaan grand champion Ndiol Géant un yi Bukar Nduut fan si club Bukar Nduut tegoon fële ca Jaxaaw Siin moom moo ko jëloon Ndeysaan moom Ndiol Géant dugg si na ci compétition bi ndaysaan njool la mat na li mu doon moom njël seex wasaare wasaare Ibrahima. Bada ngi nii. Bajil. di loo bu wér jox sa de. non tey ñëwuma tey damaa ñëw nii seetaan rek. Ah. waaw. Ah, maa ko bàyyi mi ngi nelaw daa mel de. lu tax ñëw. est ce que biddantewul. Ah, de. dama ko ko man dugg naa kay. nga sañ see mi moom. man ah? a xeeb mi. non du loolu sax. xam rek mooy loolu quoi yaa ma gën a xam yow. xaw ma dara. wóor na yàlla tey mooy loolu ko tey moom dañoo ñëw pour seetaan si nii rek. non bu du baax. non du loolu sax non ñun yàlla xam na ne amuñ lu ñu bàyyi xel billaahi. dafa am nu mu fa demee rek barke sëñ Touba. waaw moom moo toog rek moo sentir toog nii rek tey tëdd di nelaw for bi dent waaw yaa ma gën a xam. ñoo ko yee fëgg waaw. waaw jaajëf. ok jërëjëf.

Thank you. Thank you.

mbokk yi ñu ngi noonu. Ndeysaan Ada Boy Bawol ma noonu ngeen boo gëmb Lagos di ko bëreel Ada jàpp na sol na déclenché nañ ko bañ na Ada ëñ na nar mu mbot waaje bañ na delloo Ada jóg nañ yegg nañ suuf ndeysaan aada nga mbot waa jang koy tex aada daan ilaaha illallah ee eh, aada boy bawol jël bu rëy ndeysaan combat baa ngi noonu ndeysaan combat baa kung kung waaye xale yaa ngay ndeysaan biram kungkung daw nañ jëli biram Caaka Faye waaye arbitre baa ngi waaj a sifflé dox ci Mamadou Ndiaye Biram Kungu jël nañ tànk ba jël nañ tànk ba jël nañ tànk ba doole yamul relance day bëree Biram bañ na daan na ko Biram Kungu daan na ndaysaan arbitre bi sifflé na Mamadou Ndiaye dijje Mamadou Ndiaye dijje dijje moo la féete càmmoñ Mamadou Ndiaye ngembo ngembu Lagos bi Mamadou Ndiaye DJ Mamadou Ndiaye DJ Mamadou Ndiaye DJ Mamadou Ndiaye DJ Mamadou Ndiaye DJ ndeysaan ñu ngi ci combat bi ba tey Mamady Ndiaye Djé songo amagul dara amagul Djé Mamady Ndiaye ndeysaan Cheikh Tidiane Niang ndeysaan la faata ñoo mu ngi noonu di yëngu Cheikh Tidiane ma nga noonu tey Cheikh avertissement Didier avertissement Mamadou Ndiaye ndeysaan ndeysaan Talfa ngi noonu ak Cheikh Tidiane Niang ndeysaan Cheikh a nga yëngu ndeysaan combat baa ngi noonu dox ci diggante Didier ak Mamadi Ndiaye ndeysaan Didier ak Mamadi Ndiaye Cheikh Tidiane Niang ma nga yëngu Ndeysaan Ndeysaan combat baa ngi noonu di jëm Amady Ndiaye di jëm ak Mamadi Ndiaye di jee Mamadi Ndiaye DJ Mamadou Ndiaye ñu ngi ci compétition bi avertissement deux deux pour Mamadi ñoom ñaar ku am na deux ku ci mun ngaa gagné sa combat ndeysaan ku ci muus mun ngaa gagné sa combat daw jàppante Mamadou Ndiaye DJ Mamadou na yëru da koy génnee di jee boo génnee ñàkk sa combat di jee Mamadou Ndiaye Mamadou Ndiaye di jee Mamadou Ndiaye jël na tànk bi war na ko ndombo Mamadou Ndiaye war da daan daan na di jee Mamadou Ndiaye daan na di jee Mamadou Ndiaye daan na di daan wàllu wee yaa ngi am njool Géant bu Bargny aada mot na yëkkati na fi mu jàpp baax na ndaysaan compétition bi tey metti na yaa ngi noonu zongale xale yaa ngay bañ na ngay bañ xale yaa ngay bañ xale yaa ngay bañ xale yaa ngay bañ ci wàll ba Ibou Senghor numéro deux jël na Ada daw na jëli ko ña ngay bëree génn nañ saako yi Ibou Senghor numéro deux ak Ndiol Séya ñu ngi noonu ci digg géew bi arbitre bi sifle waat na Ada Boy Baol Ibou Senghor numéro deux ak Séya bu bari ay ca mbokk yi ñu ngi fii stade Jom Iba Mar mise bi 3 millions la les arènes ñooñu fi woo ndaysaan ña nga noonu ñu noonu daw na jëli ko ndeysaan Ibu Senghor jël na takk na ko Géant bu bar ñi bañ na Géant bu bari ñi Ibu Senghor Ibu Senghor Géant Géant bu bari ñi Ibu Senghor ndeysaan kal kal kal kal ndeysaan Géant bu Bargny bu Senghor ndeysaan ñu ngi ca Géant bu Bargny bu Senghor Géant bu Bargny bu Senghor Ada Boy Baol mu ngi noonu ci wàll bi Géant bu Bargny Ibou Senghor Géant bu Bargny Ibou Senghor Géant jël na Ibou Senghor Géant Ibou ah, na ndeysaan Géant bu Bargny bu Bargny Ibou Senghor Géant fi mu jàpp baax na añ tegal 16 wala lan avertissement pour Géant bu Bargny ndeysaan arbitre bi sifle waat na ndeysaan Ada Boy Baol a ngi noonu Ada Boy Baol nga noonu géant bu bari ñi ak Ibou Senghor numéro 2. ndeysaan Ibou Senghor ak géant bu bari ñi lu mu bëgg. Ibou Senghor lu mu fas yéene def. géant bu bari ñi Senghor. ndeysaan Géant bu Bargny Ibou Senghor bu Bargny Ibou Senghor bu Bargny ak Ibou Senghor numéro 2 ndeysaan ñu ngi noonu abi bi atte na combat bi mbokk yi Ada Boy Baol a ngi noonu ci compétition bi ba tey ma ngay bëre ndeysaan ma nga noonu ña nga ca compétition ba tey takk na ko Ada Boy Baol takk na Ada Boy Baol takk na ndeysaan xale baa ngay rëccel takk bi ana li mu bëgg waa bañ na ngemb laa ngay xotteeku cey xale yi ada boy bawol fi mu jàpp baax na da mbot wala déet da koy mbot tël nañ ko tël nañ ko génnee na ko ada génnee na ko ndeysaan arbitre bi sifflé waat na ndaysaan ñu ngi noonu Ada Boy Baol a ngi noonu ndaysaan ndaysaan arbitre bi ngi waaj a sifflé waat dox ci diggante Ibou Sakhor numéro 2 ak Ndiol Sey Abou Bargny Ibou Sakhor numéro 2 Ndiol Sey Abou Bargny da ngay bëre ñoom ñaar Ada Boy Baol nga ca compétition bi ba tey ma ngay bëree ña ngay bëree lu nar a xew Ada tibb na ko tibb daan na Ada Boy Baol daan na Ada Boy Baol daan na laa ilaaha illallaah yool Géant bu Bargny ak ña ngay bëree waaw waaw Ibou Senghor Géant wàcc na ko wër na ko ndombo Géant bu bari ñu wër na ndombo Ibou Senghor numéro 2 Géant bu bari ñu wër na ko ndombo Géant wër na ndomba Ibou Senghor wër na ko ndomba Géant bu baax wër na ndomba Ibou Senghor bu baax ñu wër na ko ndomba ña ngay bëree ña ngay bëree yegg bu baax ñu Ibou Senghor Géant da ko bëgg a kat appi Ibou Senghor bañ xoolal ma Géant la mu def est-ce que Géant li mu def ni wóor na Géant est la mu def wóor na ndeysaan wóoraat na ko ndomba daan Ibou Senghor am na ndam wala Géant bu Bargny am na ndam ci kaw Ibou segoor Ibou Senghor daa mel ni da koo mat ndeysaan délégation Modou yàgg cee sonn am ci cër yu bari yoo ci doxal Modou Lo ko xam-xam la ngay sunu di lépp rafet yaatum yaag yaatal bi tey ñu tuddee ko drapeau olof yi di wax takkandeer jëmm jëlay nduru sa jëmm teewal na ko looy wax ci bés bi waaw vraiment Papa Alioune euh, euh, euh, ndax roi des arènes journal les arènes ne ko làmb nekk na loo xam ne lii ñun am nañ ci mbégte trop tax ma déplacé wu pour ndax bés la boo xam bés bu mag a mag la honneur bu mag a mag la ñu les day wane ni lamb lépp la mooy roi des arènes waaye gis nañu ni li la lañu ko tuddee mu am ci cër nag lamb nangul ko ko ndax jom ja ak bëri ba. waaw ndax Modou si si lutte simple la jógee bu muy bu muy dem euh, arène yaakaar naa fi la jaar donc tey buñ ko honoré tey bu demee ba nekk roi des arènes ñu honoré ko vraiment jox ko drapeau kii bii simple nekk na loo xam ne li euh, lu tekki la lu am solo la am nañ ci kontaan trop. Thank you. ndeysaan l'ancien roi des ngi noonu ndeysaan ma nga noonu ay saafonte ñu tuddee Modou Lo drapeau Yaxya Jóob ki di ñëw ndeysaan loolu doy na ndeysaan ma nga noonu Yaxya ngi noonu Yaxya Jóob Yékini ndeysaan ma nga noonu Yaxya Diop ñëw na ndeysaan yuuxu nañ ndeysaan Yahya Diop ancien roi des Aba ah arbitre bi sifflé na Caaka Fay moom nga jàkkaar lool Ndeysaan ma nga noonu caaka caaka fay ga jàkkaar lool cey lam ñu ngi ci quart de finale laa ilaaha illallah jaasi pël daanu na Ndeysaan caaka ngi noonu Ada Boy Bawol Caaka Faye ngi noonu ma ngay lewaatoo mbokk yi ñu ngi ci quart de finale yi ndaysaan Ada Bawol dem na Caaka Faye dem na Caaka Faye wëcc na ma ngay bëre neexut bëreel def na foorab lu la daan na def na lu mu mën arbitre bi ngi waaj a sifle ci diggante ndeysaan Mamadi Ndiaye gi ci wàllu be plateau bi riis na Mamadi Ndiaye gi fi Boy Baol a ngi fi ndeysaan compétition ba ngay neex Caaka Faye dem na demi-finale Géant bu bari ña ngi noonu moo la moom nga jàkkaar lool waaye Ada Boy Baol a noonu ci wet gi Mamadou Ndiaye nga ca wàllu wële Mamadou bëreel ndeysaan Géant bu bari ñu jël nañ ko jël nañ ko jël nañ ko jël nañ ko jël nañ ko Géant jël nañ ko mbot yegg na suuf Géant jugaat na daan na Géant bu bari ñu daan na njool la ndeysaan Géant daan na la Géant bu Bargny qualifié na demi-finale est-ce que duñu boole Caaka Faye ak Géant bu Bargny ndax ñoom ñaar ñoo njëkk a génn ragal naa tirage bi noonu lay demee noonu lay demee bëgg ndaysaan ñu ngi noonu mbaa yéen nga am jàmm mbokki yi mbaa a ngi seetaan mbokki yi mbaa yéen ñëpp am ngeen xarub tabaski ah problème yaa ngi doog a dak nag dimanche bii di ñëw ci heure bii day fekk ñu ne tabaski bi weesu na de looy mën a leb mën a leb mën a leb ba leb jiili wasaare tàkk nga ndax du la baal ña ngay jour tabaski ci heure bi ma fëgg sa kër ne la Ibrahima li ma la joxoon delloo ma ko nga non c'est-à-dire wasaare bas nee na yee eh, ah Allah déedéet loolu amu ci Mamadou Ndiaye jël na tànk bi jël na tànk bi Mamadou Ndiaye daan na Mamadou Ndiaye qualifié na demi-finale laa ilaaha illallaah Mamadou Ndiaye demi-finale Ndeysaan Mamadou Ndiaye qualifié na demi-finale. yëngu na. ña nga ca. Ndeysaan. ñu ngi noonu Ada Boy Baol a ngi ci. ci quart de finale yi Dieng Aboubardi qualifié na Thiaka Faye qualifié na mu dox di diggante Ada Boy Baol ak xale bi ba tey daw nañ jëli Ada jëli nañu ko jëli nañu ko Ada fi ñu sori na war nañ ndomba Ada Boy Baol war nañ ko daan nañ ko daan nañ Ada Boy daan nañ Ada Boy Baol Ada Boy na waaye mbër day ci ay moment toll ci ay guddi toll ci saa yoo bëree ba pare ne non c'est-à-dire xam nga rek yaa ma gën a xam loolu ak làmb ñoo ànd munul ñàkk déedéet ah ayca Ndaysaan Sélé Ngok Ndaysaan xool ko laa ilaaha illallaah Sélé Mélé ndaysaan moo ko moom Sélé ndaysaan ma nga noonu Sélé waaye bëre bëre bëre bëre bëre bëre tegal 16 mbot tegal 16 mbot tegal 16 xale yaa ngay bëre ndaysaan ñu nga noonu ñu ngay bëre mbot laa ilaha illallah lu ma la waxoon tegal 16 mbot tegal 16 mbot ki war a tegal 16 tegalewul 16 ki war a mbot mbot na lamba ngi jiiri xale xale yaa ngoog waaw waaw ña ngay bëree ña ngay bëree ña ngay bëree ña ngay bëree takk jàpp sol génnaat nañ ndaysaan làmb gi ndaysaan mbokk yi ñaari demi-finale yaa ngi noonu ci diggi géew bi kuy bëre kuy daan kuy yóbbu ndam li Ibrahima fii de yaakaar naa ku daan am nga xaru tabaski ndaysaan ña ngay bëre jël na tànk ba jël na tànk ba jël na tànk ba jël na tànk ba jël na tànk ba day bañ mu jël na tànk ba xar na ko war na ko ndombo lu nar a xew lu nar a xew waaw waaw caaka fay maama de ndeysaan Ngor Mak Seck moo final woon bi paase final waat na ka wër ndomba wër ndomba bi yàgg na Mamadi Njaay caaka fay Mamady Ndiaye Thiaka Mamady Ndiaye Thiaka Faye Mamady Ndiaye Thiaka ba tey dara xewagul ndeysaan Mamadi Njaay Kaaka Mamadi Njaay ñoo wara a laale ci kanam wër ndomba bi yàgg na wër ndomba bi yàgg na lu xew Ibrahima nañ démonter nañ démonter kañ démonter dem na le arbitre bi sifflé na Mamadi Ndiaye Thiaka Mamadi na def na benn sortie arbitre bi sifflé waat na Mamadi Ndiaye féete la càmmoñ Thiaka Faye féete la ndijoor Thiaka jàpp na ci loxo Caaka Faye Mamady Ndiaye demi-finale fii ci stade Diop Iba Mar les moo ñu fi woo mise bi 3 millions la génne waat na lu nar Mamady daa nar a génn Mamady daa nar a jël 3 avertissement wala déet Mamady am na 2 avertissement ndaysaan Caaka Faye Mamady Ndiaye Mamady bu jëlaatee beneen avertissement ñu disqualifié ko jox victoire bi kii di Thiaka Faye ndaysaan ñu ngi noonu Thiaka Faye Mamady ña ngay day génn da koy buux mu génn day génn avertissement jeex na ndaysaan Thiaka daan na Caaka am na ndam ci kaw Mamadi Géant bu bari ñi dem na final ndaysaan nee nañu ñu xaar ko ba mu pare moom Géant bu bari ñi ndaysaan ndaanaan la xool ko ma ngay génnee bagaas yi ma ngay takk ci baat bi ma ngay tekki ndaysaan ma nga noonu moom Géant ràng na ko kaay topp ko Ibrahima <laughs> ndeysaan làmb gi dang koy bàyyi mu def ay déeba déebam jël la war jël sotte ay butéelam rango waat ay sengoram te ay galañam ñëwaat ne ay ca loo wax nga ko yow kay laay laaj loo wax mu ne loo wax ndeysaan ma nga noonu maa ngi ko mujjee gis fële ca jaxaaw siin ndaysaan trois millions yi wala un million yi Boucar Ndour tegoon ndaysaan nañ ko xaar mu léem fay naa la. maa yaa ngi am jàmm. maa ngi sant yàlla sa diggante ak Caaka Faye mus ngeen daje. daan naa ko ñaari yoon. yéen ñaar. waaw daan naa ko ñaari yoon. kon tey laa bëgg si kàttanu yàlla. waaw sama grand frère la maa ngi koy nuyu au passage grand la si man quoi. mais làmb moo ñu bool dañuy liggéey ku si nekk boo amee sa kër nga yóbbu loolu mooy wàññi. damay gis saa ci compétition yi macha allah yàlla dalay may nga bokk ci ñi nga xamante ne dañuy naru secret géant lan la. entraînement rek xam nga ku xool njool mu toll nii ne am doole day entraînement day liggéey lu ko jar rek moo tax quoi xam nga di santaat yàlla bu baax heure bu ma rek moom la. du sama man man du sama dara mais toujours maa ngi si liggéey maa ngi entraînement bu baax di lekk ba suur dinaa mën di tudd nelaw xam nga kon moo ñëwee ma doole dañ maa war a rey quoi. wàllu bëre dóor bi Géant fan la ñaari combat ñaari victoire mais Géant dañ may daw caatu fa dem daan naa ko daan téye bu dóor mais gannaaw dañ may moytu na ma gannaaw yi jël ngir yàlla. fan mooy sa xalaat ci làmb bëre doon. ma jox ma jël. ñan ñooy sa faru sax bu ma ko joxee waaw. Rambo xam nga nu mu la kii waay booy Kaasa nan ma ko amul amul amul combat waaw loolu dafa neex yow. dama la dul gis ci bëre door bi ngay ñëw damay compétir loolu rek. waaw jot amul. <laughs> waaw. Thiaka nuyu naa la maa ngi lay fay. maa ngi bu baax. naa laa gis mais tey da ngaa ñëw finalu sa secret lan la. waaw waaw maa ngi nii rek chaque jour maa ngi si entraînement yi xëy na la muy teg day fekk lu ma pare pare si quoi. waaw ah. am nga nga am Géant bu Bargny mos ngeen a daje. daan na ma deux fois mais nag terewul suma boy la quoi sport moo demee noonu waaw waaw. ma ko nee na yow nga ku baax. noo dafa leer suma boy la du ñu umpante si dara mais fii nag amul boy amul grand quoi sport la teewul lu mën a xew bu ñu ñibbee dañuy nekkaat benn. waaw. bonne chance. merci beaucoup. ndeysaan. arbitre bi ci diggante Saloum ak Ngor Seck Ngor Seck ak Saloum Ngor Seck ak Saloum Ibrahima mënoo wàcc sa tànk yi baaxul waa taxawal noonu baax Ngor ak Saloum ndeysaan Ngor Seck ak Saloum Saloum nga jàkkaarloo Ngor Seck moo la wan ginnaaw finalu raw gàdd gi Ngor Seck ak Saloum Ngor Seck ak Saloum Ngor Seck ak Saloum Ngor Seck ak Saloum xale yaa ngay bëre ndaysaan lii mooy final raw gàdd gi Ngor Seck ak Saloum ñuy félicité bu baax les arènes vraiment liggéey bi rafet na am na solo bokk ngeen ci site internet yu mujj ci làmb waaye bi ngeen ñëwee wane ngeen yoon ñuy félicité bu baax grand nit ko baax nit ku yaatu nit ku am yëg-yëg ci doomu aadama mais nit ku reconnaissant c'est un quelqu'un moom grand Abou Ndour ndeysaan Saalum ak Ngor Seck Saalum ak Saloum Ngor Seck Saloum Ngor Seck ndeysaan Saloum Ngor Seck na ngay bëre mënul yomb Saloum Ngor Seck daw na jëli ko Ngor daw na ndeysaan Ngor Seck Saloum Seck Saloum Ngor Seck Saloum Ngor Seck Saloum ndeysaan ñu ngi noonu Ngor Seck Saloum Ngor Seck Saloum Ngor Seck Saloum Ngor Seck Saloum Ngor Seck Saloum ndaysaan ñaari xale yaa bëre lan a xew Ngor Seck Saloum daw na jëli ko Saloum moo ngemboo ngemb lu ñuul Ngor Seck moo ngemboo ngemb lu weex munul yomb Ngor Seck Saloum Ngor Seck Saloum cey mbër ndeysaan le grand champion Gaskel Jammeh Seck Saloum Ngor Seck Saloum Ngor Seck Saloum Ngor Seck Saloum ña ngay bëre Ngor Seck Saloum Ngor Seck Saloum ña ngay combat final raw garde bi munul yomb Ngor Seck Saloum Ngor Seck Saloum tey sama waa ji Fadam Tour Ngor Seck war na ko ndomba Saloum daan na wala déet Saloum daan na Saloum daan na Ngor Seck Babacar Tine loolu dafa leer final baa ngi noonu arbitre Al Demba Bargny moo la féete ndijoor Babacar Tine moo la féete càmmoñ bul wax loolu ba ndeysaan Babacar Tine Al Demba Bargny ngi noonu Babacar Babacar Tine Aldemba ndeysaan Aldemba bari ñu daw na jëli ko Babacar plaqué na ko yegg nañ suuf yegg suuf mbot bañ na Aldemba est-ce que mbot bi baax na Babacar njool la jugaan nañ siggi ndeysaan ñu ngi Aldemba Babacar Aldemba ndaanaan la ci làmb Aldemba Bargny ak Babacar Tine ndeysaan ñaari xale yaa ngi noonu Aldemba Bargny ak Babacar Tine ñaari xale yaa ngi noonu ndeysaan Babacar Tine ak Aldemba Bargny ña nga noonu ci combat bi arbitre bi na atte na Aldemba Bargny am na benn avertissement Aldemba Bargny Babacar Tine mënul yomb Ndeysaan Babacar Tine ak Aldemba Bargny Babacar Tine Aldemba Aldemba Bargny ak Babacar Tine Babacar Tine ak Aldemba Bargny Babacar Tine ak Aldemba Bargny Babacar Tine Aldemba Bargny ña nga noonu ci compétition ba ña ngay bëre Babacar Tine Aldemba Bargny wër na ko ndombo Babacar Tine wër na ko ndombo wucci na ko wër ko ndombo fu ñuy mujj Babacar Tine Aldemba Babacar Tine Aldemba ndaysaan Babacar wër na ko ndombo Babacar rokkante waat na ci ginnaawam combat bu nar a garaaw Aldemba Babacar Tine Babacar Tine Aldemba Babacar Tine Aldemba war na ko ndombo koy jéem a bës Aldemba daa bëgg a rëcc na ci tànk ba toog na ca daan na ko Aldemba daan na Babacar Tine laa ilaaha illallah ee ndeysaan am na xew am na lu xew kee nanguwul Aldemba Babacar Tine Babacar nanguwul de ki bëndi ñu teel a joxe verdict ndax bu bii jeexee dañuy joxe victoire bi ñëpp ànd ñibbi

ki bon di ñu teel a joxe verdict ndax bu bii jeexee dañuy joxe victoire bi ñëpp ànd ñibbi

bu ñu fa final bi rëccoon xaw ma bu ñu demee nu yox waa koñ ba laa ay waay bu ñu rëccoon waay ndaysaan final baa ngi noonu mbokk arbitre bi sifflé na Géant bu Bargny moo la féete ndijoor Caaka Faye moo la féete càmmoñ dimanche 3 juillet 2022 stade Iba Mar Diop les arènes moo ñu fi woo mise bi 3 millions la raw gàdd bi jeex na poids léger bi jeex na poids lourd bee ngi nii ay ndaanaan a doon compétir ay ndaanaan di toog ay ndaanaan di dem ba finalu dox ci diggante Géant bu Bargny ndaysaan ak Caaka Fay ñuy félicité bu baax ndaysaan képp koo xamante ne yaa ngi les arènes jiital ko ci bopp bi Abou Ndour Babacar Yakamar ak képp koo xamante ne yaa nga fa suñuy frère lañ ñooy bokk di nekk ci terrain bi félicitations les arènes mbokk ñu ngi noonu ci teewaayu Cheikh Bamba général saltige caajaay ma nga ca kaw mbokk yi ci teewaayu Père Birame Gningue agent wu Modou Xarañ Lo ma nga ca kaw drapeau Modou Xarañ la ñuy bëre jàppante nañ daay la laa wicc na ko daan wala déet tay mu dee daan na daan na wala déet ba balaal na suuf de caaka fay war na ko ndomba Géant Bargny caaka fay caaka moytul mu rëcc Géant Bargny caaka fay Géant Bargny caaka fay daan na caaka fay daan na Géant Bargny Géant nee na daan naa ko Abou maa ngi lay nuyu di la féliciter. waaw vraiment di la jaajëfal grand bu baax. waaw tey bis ban yëg-yëg nga ci am. waaw yëg-yëg bu bu neex a neex lañ ci am. parce que boo xoolee xam nga woote làmb nit ñi ñëw à ah, ci ci jàmm nga tëgg ko ci ci jàmm ñu ñu woy ko tëgg ko nit ñi ñëw en ah, masse nag vraiment et puis c'était pas évident parce que on a à à juste une semaine de de la tabaski nga mën a woote nit ñi bàyyi seen yite yëpp ñëw vraiment gërëm naa ñëpp yéen la presse bàyyiwuma kenn ñëpp a si promotion bi vraiment di ko wax bu dégg bu teg di ci bind di ci wax gërëm naa ñëpp sant ñëpp daal waaw. les arènes tëgg tournoi teg mise bi 3 millions nga jël bis bi dara jaale waaw Modou nag dañoo xaw a yàgg maa ngi bëgg a def 15 ans si si wàllu journalisme bi muy door boobu déggagul daal yi presque maag moom ñoo nekkoon daal si lu bëri ma koy bind di yu bëri daal ñu koy seq si wàllu sport nag wa moo tax bu ñu demee boobu nekk roi des arènes ñun ñu war a tëgg suñu première journée ñu xalaat ne boo tuddee Modou Lo rek mel na ni tuddee nga tuddee nga ko képp koy ko yëngatu ci loolu ko waral wax sa digganteeg Modou Lo mosuloo am mu woo la Abou Ndour li ma moom euh, digante journaliste ak ak ak kii la quoi sportif bu bu làmb jeexee am nañu relation dëgg la loolu moom mais nag bu bu bu desul lu dul sport ay ay relation professionnelle lañu lañu seex ma ne moom waaye nag gannaaw loolu tamit këram seen yaay yaayam. ay magam ay sërëm ñëpp seeq naa ñoom ay relation yoo xam ne daal maa ngi am nañu relation bu baax daal ni ma ko amee nag presque ak ah. ni ma ko amee mbër yëpp waa ah. xalaat les arènes tudd beneen tournoi wala les arènes tëgg lutte sax lutte avec frappe dara jaale ko ñeneen ñun déwén dinañ tëgg combat lutte avec frappe bu soobee yàlla dinañ tëgg lutte simple xam nga dañoo toll si boo nekkee groupe de communication yore site da nga war a créer un contenu boo xam ne yaa koy moom sa bopp mën parce que soo bëggee basé rek ñeneen ñi jox euh, na a li nga mën na am li nga li nga li nga bëgg fi fi nga bëgg a yegg mën nga fa bañ moo tax ñu bëgg a góorgóorlu di créer suñu événement bopp di tëgg suñu làmb muy muy lu simple muy muy ay frappe incha allah. jërëjëf kontaan naa bu baax waay kontaan naa bu baax